boo ko xoolee bu baax di nga gis ne mun dañuy loolu dafay nekk ay éléments yu gën a multiplier la tension parce que ku nekk ñëpp d'ailleurs dañuy xool ci réseaux sociaux yi pour xool fu tension réew mi toll pour xool fan la tension bi gën a vraiment gën a gën a méttee te luñ ci gën a ñu ci gën a remarqué c'est surtout li gën a graaw mooy presque autant di nga am information vrai mais li ci quatre vingt dix pour cent information yi ñu si gën a bëri yépp c'est des montages wala des fake news des fausses informations te bi ñëpp am xelu biram Touré nii wala xam xel bi ngeen am yéen ñii nga xam ne mm-hmm. vous êtes des professionnels boo leen xoolee vidéo xam ngeen ne lii montage la wala c'est du faux wala information bi dëgguwul te de plus en plus on voit que même les fake news les fausses nouvelles sont de plus en plus perfectionnées donc état du Sénégal nag c' est un la sécurité c' est un ensemble du benn pàcc kese pàcc yu bari la te parmi ces pàcc la nag dañuy xool comme les réseaux sociaux xam nañ ne am na impact bu am solo bu muy def ci population bi dañuy xool naka lañ koy filtrer naka lañ koy réguler comme il est difficile de mettre un policier devant chaque manifestant noonu la jafe jafe teg benn système technique derrière chaque utilisateur d'un réseau social c'est difficile waaw mun naa ne c'est quasiment impossible moo tax ñu commencé woon par une première étape mooy désactiver toutes les applications des réseaux sociaux loolu lañ def euh, il y a trois il y deux jours de ça le premier lañ ko def dans l'après-midi et mais on s'est rendu compte tout de suite que ñu bari dañoo utiliser yeneen yeneen yeneen yeneen application pour contourner justement ce premier filtre là du fait que hmm, mais maître j'ai euh, monsieur le ministre dama am benn laaj xam nga euh, euh, yow yaay ministre de la communication télécommunication économie numérique mais yow ngay avocat mais est-ce que ci wàllug droit de l'homme ci wàllug suñu constitution également nga tëj lépp ba nit ñi mënuñu sax am lu ñu exprimer woo ci wàllug ay internet parce que xam ñu ni sénégalais yu bari peut-être seen kër la toog yore seen téléphone. Euh, di mhm. euh, di discuter ak seen i mbokk même bu dee euh, bitim réew am na ñu nekk bitim réew ci internet boobu kese la ñu mën a jaar surtout WhatsApp ak yooyu pour woo seen i mbokk yu nekk ci réew mi pour xam ci yan situation la ñu nekk est-ce que tëj yi ngeen tëj yooyu yëpp tamit mënul am yeneen i conséquence waaw xam nga toujours dañuy xool c'est vrai que c'est un désagrément c'est vrai que neexul c'est vrai que dina indi gàllankoor euh, ñenn ñi mais les impératifs de sécurité nationale wala les impératifs de défense nationale wala tous les moyens que l'État peut faire pour assurer la paix et la tranquillité publique loolu c'est prioritaire par rapport ak bépp considération moo te li ñuy def nii c'est tout à fait légal c'est-à-dire que les textes le code des communications électroniques si boppam ma l'article 27 wala la wala le cahier de charge yi nga xamante ne mooy moo moo lié opérateurs yi ñu am Sénégal ñetti opérateur yi ñu am Sénégal ak euh, état du Sénégal y a une disposition l'article douze 1 tiré 1 de du cahier des charges des opérateurs da ko wax clairement c'est-à-dire dañ fa prévoir clairement en cas de menace sur la sécurité publique, en cas de menace de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative am une possibilité instruire, requérir tous les opérateurs, nous donner une mesure technique pour réguler le trafic, voire même suspendre le trafic pour des raisons de sécurité nationale. Et li ñu gis tey jii ci réseau sociaux yi am na effet bu bu bon ci suñu paix ak suñu tranquillité publique dëgg rek moo tax ñu ñuy wax vu que naka la yenn ñi su nekk ci ci ci à l'étranger naka la ñuy manipuler di woote c'est même plus un appel à l'insurrection parce que aujourd'hui c'est un appel à la guerre carrément dañ ngay dégg loolu façon wax bu nekk ngay dégg jusqu'à présent mosul am Sénégal coupure réseau yi mel nii mosul am Sénégal parce que c'est un pays on a une tradition démocratique loolu man mi di avocat loolu laay dund on a une tradition démocratique mais démocratie pour démocratie c'est important yoo xam ne aussi que balaa nga ne naam ne fa bu dee suñu démocratie bi daf ñu nar yobbu foo xamante ne dafa nar a sànq suñu réew il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités parce que responsabilité État la Birame Birame Touré mi di yow mi yow yaay taxaw naan nañ arrêté lii wala nañ def leneen parce que du sa responsabilité am de de de assurer la yéen ñu toog foofu assurer leen la paix assurer leen leen jàmm assurer leen ngeen mën a nekk dans un pays stable. Mhm. loolu nag lu ko jar na ko jar parce que lu ko jar na ko jar mooy lan mooy surtout surtout côté technique côté c' est vrai que c' est vrai que côté démocratie euh, yooyu peut ça peut poser problème. mais mais monsieur le ministre dàggu ma la démocratie loolu débat la d' ailleurs. waaw monsieur le ministre la démocratie jusqu'à jusqu'à où la elle, elle est, la liberté, c'est une, droit fondamental, mais c'est un droit encadré. la liberté s'arrête ouais. là où se commence celle des autres. Uh-huh. Donc, monsieur, le ministre. Ça, parce que y a une restriction, voilà, pays, c'est un pays de dictature. attention, il y a des droits fondamentaux, c'est des droits, certes, mais des droits limités. Ouais, monsieur le ministre. Euh, man dama beneen laaj mooy euh, xam nga sànq par exemple Fatima mu ngi dellu si ci euh, un cas boo xam ne on le cite muy le cas Tunkara qui accuse même Gorgui si Dieng bon jaarale ko ba léegi ci réseaux sociaux yi ni dafa recruter ay nervi ak yu mel noonu ba kooku sax nee na day fay porter plant ak ay avocats fale au niveau des des des États-Unis ak waa NBA est-ce que yéen l'État du Sénégal parce qu'on le sait l'État doit être fort mais l'État a également les moyens justement d'aller chercher ces gens-là qui veulent euh, nu ñu koy waxee ci euh, mettre le pays à feu à sang te ñoom ñu ngi bitim réew euh, di message subversif yooyu ngay wax wala ay appel yoo xamee ni message yu haineux yi ngeen di yi ngeen comme ni nga ko bindee ci seen seen seen communiqué bi est que l'État n'a pas